wax ci mom ci lu rafet xeyna amna lo baye parce que ci deug deug deug dafa nek nit ku bax euh, man euh, yag nañu lool <laughs> yag nañu euh, nek ay xarit nek ay mbok nek ay camarade ay ma ay ay ay compagnon ñuy ñuy euh dama wax ne senegal mo ñak waye aussi Afrique mo ñak ndax babakar dafa amon ak may manam euh, lepp lu mu xalaat man na la koo wax ak koo doon te dula dula te dula dula ma te du ñagas lolou lu ama am solo la euh, ñu bari dañ ko daan deglu ci ci biir senegal ak bitim rew ay kilifa yu bare bare ci Afrique dañ ko daan deglu mu di leen wax li mu xam ci adina bi ni muy doxee Euh, kon bu fi jógee ñun ñëpp la fi jógeel ma jaale euh, famille am di jaale mbokki taalibe aussi parce que taalibe Serigne Mountakha la woon euh, di jaale aussi le monde de la presse ñu yëngu ci affaire tas xibar parce que xex na ci xex bu ama ama ama am solo and ci nak aussi ak fit and ci ak ngor lol lol duma ko fatte mukk jige won nako mu nek sama mak nek aussi sama confident Lima gëna gën retenir ci mom moy fulla ci ak fayda ji lima gëna gën ci mom moy nit ku ñeme dëgg xamne nu sa dara jamanti tam bu la waré wax dëgg la koy wax li ma retenir ci moom mooy nit ku bëgg mbokk ma mën a wax fii ne képp ku mbokkal Madiambal Fatma Dieye séq naa ak yow teraanga séq naa ak yow wëllëre te mën naa wax ne ci mbokk yi kenn jëppiwu may retenir ci moom it le journaliste bi nga xam ne day wax ne toujours moom loolu la bëgg a wooyee boppam te yàlla mayoon ko ndax Babacar Touré saa bu defee éditorial bu la bind bu xëyee ñëpp dañ koy jënd di ko déglu yàlla mayoon ko xel macha allah mu bëgg métier bi taxaw métier bi ndax métier bi journaliste tamit lim ci def bari na li ci jiitu mooy premier radio privé moo ko def ñu koy ubbi bañ koy ubbi war koy ubbi ba jàpp dat fekk président Abdoulaye Wade ñu ngi woon ci kaso bi daf ne Abdou Diouf du mu ubbi rajo bi mukk te Wade génn kaso bi mu wàdd génn mu rajo bi à de trois chefs président Abdou Diouf ñëw président Mauritanie ñëw Alpha Omar bu Mali ñëw donc waaye dëgg la jiital man mii di wax ak yow nii ay millions la ma doon jox ne ma demal nga jox lii demal nga jox kii demal nga jox kii tabaski gii ngay gis ni sama rakk la woo ba mu ñëw mu bindal ko ab liste ne ko ñëpp demal nga jox leen ay xar. pour te dire que rek day nit koo xam ne social la nit koo xam ne ko am njariñ la woon fii ci dëkk bi. nu wax na ko léegi nee na ci biir Covid bi maire yi nekk ci département bi yëpp la dem participer indi leen li nga xam ni moom mooy wàllam ci liggéey bi. moo tax dañuy ñaan ci yàlla rek ah, yàlla na ko yàlla yërëm fii mu fii mu ñëw nii ay sëriñam taxawu ko yàlla na ko sëñ Tuubaa teeru sant nañ ko bu baax nag. gërëm nañ ko bu baax a baax parce que lépp lu mu mënoon defal nañu ko ñun kii wax na ko léegi euh, compétence compétence transféré yi moom dadaa indi wàllam pour nga xam ne lii daf ñu ko doon jàppale ci dëkk bi jàppale ko askan wi ja moom dama ne ku ko ku taseeg moom rek ndax man mii di wax ak yow nii euh, moo ak sama mag Ablaye Ndiaga sila ñoo bokk ndoon Sud FM ñoom ñoo ko doon defar mbuur gee ngay gis ne bu su nit ñi ñoko ko ñaanoon mu ñëw nit ñuko ko moom daal loo ko lu ci tek baat té nak taxawu askan wi comme li nga ko wax rek taxawu askan wi ndax mom ko top daal da yakar ne yàlla na ko yàlla yërëm rek. ngi kay ñaanal yalla yalla na yàlla xaare ko aljana yalla na suuf sedd yalla na ko àlaxira gënal fi mu nekk yalla na yàlla àtt ci ñeegalam ñun population de babakar juddo wu fa waye li mu ñu defal man na wax ne defaluko kenn du nek gatt xel na sur le plan santé. éducation ak euh, juboo ak suñuy chef religieux doom doomu aadama Babacar defal nañu ko kon ñun duñu man lu dul ànd ak moom de Dakar à Touba lii mu yaakaar ci ay sëriñam yàlla defal ko ko ku baax accompagné nañu ci lépp mairie bii ñu ma denk tey jàpp naa ne depuis 2002 à nos jours Babacar Touré jot yogul si teg loxoom si suma mbagg di ma tette di ma guidé sama connaissance ak moom depuis 93 ans donc damay wax ne ñun perte lañu ñu koo xam ne euh, diine moo ko perte ñëpp ko perte addina yëpp moo ko perte waaye Ngaparou perte na koo xam ne icône la fa woon kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla xaare ko àjjana yàlla defal ko yërmande njégal surtout turu imam yu ratib chef de village alaaji Mbaye Mbaye Sagne ak mboolem population Ngaparou yëpp a région de Thiès yëpp su ma doon wax li mu nu defal li mu nu defal di ko lim kenn du fi jox tey bi ñuy déconjonctionné CM bi ñu war ko xaajaatle lii dem lii se lii dem Babacar Touré moo jëkk yëkkati ay millions jox ma ne ma moo du commencé ambulance tey bii gaare foofu Babacar Touré moom moo andi teg ko si suñu loxo bi ñu amee mairie bu bees euh, imaam ne mairie bu bees sañse bu bees Babacar Touré L200 la gaare def su douze ordinateurs yoo xam ne kenn laalu ko ñu équipé ba desal. lii Babacar Touré mu nekk un patrimoine national. un patrimoine africain nous jël ku nekk def ay seet rafet ci nous loolu ni Babacar war nga war nga war nga war nga nous Sénégal président de la République président Macky Sall ñu xam ak li dox lépp biir ak président yi fi président Douf, président Wad, link relation privilégiée avec eux parce que c'est un homme juste un homme juste

parce que sëriñ Abdou Akim mooy sëriñam te sëriñ Abdou Akim ak sëriñ Mountakha benn lañ moo tax ba ndigal egg si moom taxaw na si taxaw ba rafet ñun famille bi ñun ñëpp rafetlu nañ ko mbokk taal bi fi nekk ñëpp rafetlu nañ ko Sénégal rafetlu nañ ko di ñaan daal yàlla xaree ko ajana mu li nga xam ne bàyyi na ko fii muy mi nga xam ne muy muy ay muy muy muy sagesse li nga xam fii muy muy xam-xam nga xam bàyyi na fii muy muy muy muy ay horizon yu yu yu nga xam ne ubbi nañ ko ak ay xale yoo xam ne nii moo leen formé ay groupe de presse mettre en place yooyu li ñuy ñaan rek mooy ñoom ñëpp ba yàlla may leen kattan ba mañ ko dundal. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mooy indi nañ fii tey ku am personalité andi nañ fii tey ku gëmoon ay principe am nañ fii tey kenn ci jeexantale yarub mag mi nga xam ne nekk na ci mel ni mu nekk mii ngeen nekk yéen gëmoon ka nag lool te gëm ne ku ko sellal man ci am yàlla man ci am nit ñi moo waral ku seetlu liggéeyam bi ci wàllu lim ubbi woon jeexantal yi am na solo lool ci biir bi kooku lañ indi tey kooku lañ indi tey mu àndoon ay at ndax le vingt le 27 juillet 99 laa ñëwoon ci rajo bi ba fii nu toog noo bokk ànd mosunoo yedd ci benn yoon mbaa mu corrigé nu mbaa mu wax nu lu nu naqari mbaa lu leneen au contraire bu la gisee dana la wax lu la encouragé ci liggéey bi te itam bu la teralee da xam ne teral na la loolu lañ xam ci moom yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na àpp sore yàlla na yàlla xaare ko aljanna مات السلمة كافئني أما لو قبل القمد وجالي أكرم أنفى الكرم بدرري بخير رد لنشرم أسهله دولة الخسيدة خارقة لادة مفيدة أسألها دولة الخسيدة خارقة لادة مفيدة